asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu safoo di ñu seetaan site bu mag bii di seen bës maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di kontaan également saa bu ma waree jàkkaarloo ak yéen comme ni ma leen koy defaree saa su nekk rek ci seen ay émission tey nag ma ñëw fi nga xamante ni moom moo di Liberté 6 extension euh, dalal ki nga xamante ne ndaanaan la di opérateur économique di Cheikh Ahmed Cissé mu nekk koo xamante ne nag xam-xamam dafa dafa màcc lool ci wàllu politique ñu nar la seq ak moom tey waxtaan wax xam du am solo la xam naa ne ku ko déglu rek euh, di nga si jariñu du ñàkk ne dañ koy bàyyi rek mu nuyoo mbokk internet seen bës TV euh, laataa ñuy xuus ci waxtaan bi bi nuyu naa la. ngi lay fay maa ngi nuyu ñi lay seetaan yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àddina di ñaan jàmm yërmande ak barke yàlla nañu ko yàlla defal defal ko képp ku nekk ci réew mi ak bitim réew di am kontaan lool toog ak yéen. mu am solo macha allah euh, ñuy rafetlu tamit kàddu yi euh, mais seex bi mu nekk loo xamante ni si tey euh, politique dafa nekk loo xamante ni moment bi ñu toll dafa lëmb réew mi bu ñu bu ñu waxut fii violence ñu wax fi manifestation dëkk bi yëngu trop te politique rek laal ko ana leen ngay wax si loolu ban jàngat nga ci jàngat bi ma ci am mooy euh, politique yàgg na ci Sénégal mais nii mu mel musu ko mel kan la gis nga boo nekkee sa kër dara mànkiwul gan ñëw ñibbi lu mànki xamoo kan la waaye moom nga koy tuumaal man ki ma koy tuumaal mooy Ousmane sonk ndaxte moom mooy politicien bu yëkkati gémmiñam woote mortel komba waaw mooy politicien bu yëkkati gémmiñam saaga mboolem institution bu nekk ci Sénégal ne respecté wu leen xam nga man d'accord naa nga ne ànduma ak ñii wala d'accorduma ci li mais respecté wu ma la loolu mënuma koo nangu rawatina njiiti opposition boo xam ne dañu dem ba ne yow révolutionnaire nga pour Afrique waxatuñ sax Sénégal bokk ci ñu war a xippi bëtu Afrique suba yar daf koy fekkee wax ju sedd daf koy fekkee détermination bu mët daf koy fekke mais pas nii donc euh, fitnaay politique yi Sénégal actuellement xawma kan la wala lan la exact mais comme dañu yàgg ci kër gi te dara manqué wut gan gi ñëw ñibbi moom leen koy tuumal mooy Ousmane Sonko. kon la déggee bu baax yow da nga jàpp que ni euh, tiraillement bu metti bi ak li nga xamante ni moom moo di insécurité bi total ci li nga xamante ni moom moo di politique waxante lu ñaaw menace bi lépp si biir Ousmane Sonko daal moom moo ko waral. man loolu laa gëm jàpp ma loolu dama gëm ne moom la ndax maa ko dégg ci làmmiñam. li ngay am preuve. waaw moom moo ne mortel combat la woote moo ko wax ba dégg boo ko xoolee rek gis ko mortel maanaam waxut benn dee kaay ñu dee wax tamit ne ndaw ñi génn leen moo leen génnee man tey su ma la woowoon nga ñëw wala ma yónni la responsabilité bu dal sa kaw dama ciy bokk yonantu bi mu yónnee yàlla bi mu yónnee yonantu daf ko ne defal li la sant li ci des man maa koy déggoo lim ko wallaahu yasimuka minan naas man yàlla ma lay musal jox ko parce que moo ko yónni moom moo woo ndaw ñi ci loolu man jàpp ma loolu de dama ko gëm te ci gémmiñam laa ko nangoo moo wax ma dégg wax oh, nga dégg mais tamit dañu daf ko jëf ma gis. daf ko wax xam nga tey wax fu mu nekkee dëgg rek jëf folli ko mais Ousmane Sonko dafa wax dafa jëf. Ousmane Sonko dafa wax dafa jëf mais certains ci Sénégalais dañuy wax ni que li Ousmane Sonko nekkee nii faute gouvernement bi la parce que ñoom ñoo koy tere mu mu manifester di ko tere li nga xamante ni moom moo di droit am le plus absolu la looy wax ci loolu. man su ne faute gouvernement bi la mooy ne xam nga son excellence dafa yaru dafa dal dafa noppi lim may Ousmane Sonko moo ëpp ndaxte. yàgg na génnee musiba ci gémmiñam gi mu jëkk mu dem nag ba léegi lu ko neex lay wax xam nga démb ku mel ni njiitu Pastef nga toog di waxtaan ak sénégalais waxoog as waxoog Pastef waxoog Yewwi Askan Wi Sénégal yëpp bokk ci institution yi gën a mag mooy procureur de la République nga koy caricaturé ba xale yi di ko fooye te kooku moo war a atte suñ baay yi atte suñ yaay yi atte ñu ñun mais responsabilité boobu noonu nangu naa ku caa def ko parce que comédienne la nangu naa moo laa moogan def ko parce que comédienne la mais nanguwuma Ousmane Sonko en tant que leaderu Pastef def lu mel noonu di xaw a soofantal benn ci institution yu gën a mag ci réew mi loolu mënuma koo nangu donc tey euh, Macky Sall la lim may Ousmane Sonko moo bari mais su fekkoon daf koy topp bëñ pour bëñ bët pour bët du demee nii ndaxte tey diggante moom mag Adji Sarr loolu personnel la yoonu nguur nekku ci jigéen la jigéen a ko dalal jigéen a ko invité jigéen a ko tuumaal loolu ñoom ñaar la seen affaire la mais wax dëgg yàlla nag euh, attaqué bu muy attaqué gouvernement bi di attaqué institution yi di leen ñàkkal fayda ak di leen tuumaal toog na ci télé na Macky Sall assassin la moo rey fukki nit ak ñeent wax na ko ñu dégg donc yooyu yëpp nga bàyyi ko mu sedd mooy waral yeneen yi yabaate ci jigéen mu ngi dooree ci sa forme bi baax na nga ne ko merci bokk na ci li nga ko war a wax mooy lus sa yoon wala nga émale ko wala nga am noo def ak moom mais tamit dañu gis ne kam euh, Ousmane Sonko di mooy lépp lu mu wax ci li nga xamante ne moom moo di procureur moom dafa jàpp ne que procureur ndaw ki nga xamante ne moom moo di président de la république ni a nekk maanaam ci li nga ne moom moo di besoin ñi nga xamante ñoom ñoo di mais Ousmane Sonko lan moo tax mu mu am ragal teefu ragalu ragalu procureur kam doon tuumaal dem na ba génn àddina Bassirou Gueye tumal na ko lu ne koo génn àdduna mu jàppaat kii ragalul nit ki de position boobu la ragal ndax dafa jubut xam nga man position procureur la ragal mais pas nit ki bu doon Bassirou Guèye la amal problème kooku de na jeex na xanaa ke ku xuloog nit tongoog moom ba mu génn àdduna nga sant yàlla. mais tamit affaire Adji Sarr ba léegi dafa ci loxo. mais problème bi man ragaluma procureur parce que aw ak moom affaire maa ci li ma ne bu ma julli fajar lazim suba te daan naa nelaw bu ma fa paree maa ngay lijjanti xaalis su may mbokk ak su may xarit rek lay dem lanteel dew ma ñëw ma faalewu ma procureur lijjantiwu ko parce que amuñ affaire bu doon man rek du am dossier mais moom mi fi nekk di yaataa yumbe di am dossier euh, moo tax moom mu leen di attaqué pour xam nga atte bu nekk opinion publique daf ci am solo wër na la ne Ousmane Sonko bu nit ñi toon dëkk bi kii ins bi diggante mag Adji Sarr li ko Adji Sarr wa yeewi neen askan wi bu yàgg mais nit ñi génn moo tax maanaam nit ñi dañu am solo ci atte toujours dafay gëmloo askan wi ne kii baaxut kii fenkat la kii kii la àndal ngir ëllëg lu xew rek ñu mun ko waaw. muy tëggu euh, moom euh, moom foog ne gënul ci président rek mais moom moom moom moom boppam la tojal xam nga tey mën nga waa mën nga waajal nit nga lalal ko pexe. Mm. pexe yëpp jub te xam nga fan nga. lan la yàlla di dogal. fii kenn ku ci nekk ci ñun fexeel ne la fexe boo xam ne bu antu woon doo toog fi nga toog ci wax ak ci jëf mais nag ginnaaw bu nit ki lalee plan ba pare lan la yàlla di dogal ki tabaxoon rëbës bi mu koy tabax daf ne kaso gi baax na ci sëriñ diw ak diw moom ci boppam fa la gaañu waaw dafa tudd ñaari sëriñ ne ñii kaso gii nii ci ñoom la baax 100 ku ko tabax moom ci ñenn ña ko doon tabax fa la génnee àdduna fa leen ko tëj ba mu dee. yene nek la borom ci fana donc Ousmane Sonko ñetti objectif la am rewmi nakari, ba su waxe nakaru rewmi ñu gëm ko parce que mom lolay politique am gis nga nit sa yu wax amna lu mu wara wax politique Ousmane Sonko du wax lu yiw ak lu bax ak lu rafet mais moy Macky Sall katu nit la baxut nangam donc su rewmi nakare ci la campagne am du dox bul fatene docteur su ñep wéré du dox kon docteur du pour wér gu yaram rek waye pour wére di ci la ceebam di noyé bul bul né atté attekat bi bu krim amul du doxé kumi muy atte bul faté né chauffeur bi bu ñëp amé auto du doxlé kuy dugg ci auto donc àdduna bab nit bu nek rek ñi nit la Ousmane Sonko ngir ñëm ci réew mi moy réew mi naqare réew mi baña dem nit ñi bañ ci lay doora am lu ko neex kon koku bëggul Sénégal no c'est la pure vérité Ousmane Sonko tay da nga bëgg wax ne xamul dara lu rafet lu Macky la def ci réew mais lu musuko wax dafa melni nit ñi rek boy dund lepp lu bax lo nekké xam nañ ko mais dañuy xaar nga day ñu door la estati ay eh, yow aka a ki nim baxé nim mais bi ngay dund sa wa kër yi sa mbokk yi xam nañ sa yiw xam nañ sa mbax mais sa fur rek dem di interview Cheikh Ahmed Mom dafa eppal dafa bëgg ku ko wane Mom dafa wara na bàyyi nang mais bis bo dewon bañ teural la ñu wax sa yu bax Ousmane Sonko lepp lu baxi Macky Sall mo la ko gëna xam parce que doful dina japp ko waye mënu ko tudd ndax tudd lu ñaawé Macky Sall noyel ci bam il faut nga comprendre ko il faut nga comprendre ko mais tay bu ta wax ne gisul terre mënul munul wax ne milliard yi Macky Sall di duggal ci mbay mi gisul ko munul wax ne ni muy dimbalé jigen ni gisul ko munul wax ne père de famille yi ñak sen 80000 par mois yeguko mënul munul wax mais mën na yëg deux milliards yu ñu jox ay géwél ba di leen saboté moom mi doon saboote géwél yi démb tey mooy xaccoog ñoom tëggum bool gis nga yàlla ni mënee àtte te géwél day tëgg bool ngir teral giiram ngir bégal giiram moom day tëgg bool ngir sacrifier doomi jàmbur yi moo géwél yi du ñu benn géwél yee ko ëpp kalaas ñoo ko gën a tekki dara ci réew mi ñoo ko gën a riis askan ñoo ko ëpp solo ci réew mi li géwél liggéey ci réew mi Sonko su ko liggéeyoo nekk président nekk lu am solo macha allah ba léegi de mbokk internet mu ngi leen fàttali ñu dalal ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Ahmed Cissé mu nekk koo xamante ne opérateur économique la xam-xamam màcc bi nga xamante ne moom moo di wàllu politique tey moom lañ dalal fii ci Senbuzz TV mais ñu ñu jàll bi nga xamante ne moom moo di élection législative parce que dañu jàpp ni que léegi ñoom soreetul dara te problème bi bëri ci bal dinañ gis bi invalide liste bi si des lan ngay wax si loolu tamit parce que tamit ñu certains Sénégal yi ñu jàpp ni ko loolu kumba am ndey ak kumba amul ndey la parce que c'est si ñoom laa nekk non amut sax ku ñu ku ñu jëla kuñ jëlul dafa am ay cuune yoo xam ne bi ñuy def seen liste ñoom ñoo juum mu concerné leen te ñoom ñoo wax ne dañoo juum donc loi bi moom dafa tegu mais kenn amul droit kii ngay jël kële doo ko jël mais <coughs> ay kàngam yoo wax ne dañoo war a jiite réew mun leen a defar liste pour teew fa la dayob cuune yem. ñoom ci ñoom ñëpp la. maanaam képp koo xam ne daal yow mënoo defar liste attanoo pour ñu jox la liste parce que mooy li gën a yomb ci liggéey bi. boo xam ne da nga am njuumte ak bu mu mën a doon da nga war a dem ci poubelle bi. ma loolu laa gëm di parce que course la boo xam ne dafa war a neutre tëddee ndey ji seex ponkal mu jëmm bu ne lëm di laaj baatu askan wi mënoo defar liste bu bu baax. nga génn abal ñu sa liste ca mbalit ba nit ñi tàllal. nga génn abal ñu sa liste sa mbalit ma ñu nekkul am solo ba léegi dañuy continuer li nga xamante ni moom moo di politique eh, ñu jaar ci nga xamante ni moom moo di Mollah Morgun Mollah Morgun nag yëkkati ay kàddu yoo xamante ni si tey yaakaar naa Sénégal yi kenn rafetlu ko eh, ba di cité bi nga xamante ni moom moo di si si sëñ sëñ comment dire encore xalifa général des mourides sëñ Mountakha Bassirou ba ni da koo weddi en tant que talibé lan ngay wax ci loolu ak en tant que citoyen boo xamante ni si nga nekk Sénégal ci mbiru mel noonu

xam nga sëriñ Mountakha Bassirou ndaw la lu nekk ci tool tool bi mu nekk mooy lislaam capitaine bi ko jiite ci tool yi mooy Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasulillahi bu paree ba góob ba naaf fa muy wersa mooy ci ndabal sëñ Touba loo weer ci sëñ Touba rek jox nga ko yonant waa ana ki nga tudd noonu moom lan la mën a peese ci loolu daf ne weddi na ko ça veut que gëmoon na ko lan la def Touba lan la def ci xasida Serigne Touba yi ban jikko la am bu ñu war a royee ci moom ngir ne kii murit la ban jikko leen war a roy ci moom ne kii muridullaahi la taaliba Cheikh Ahmadou Bamba la ban jikko képp ko wax ne murit nga munuñ laa roy ci jikko amoo njëriñ ci xidma Serigne Touba gënalu la sa bakkan man ma ne dangay ngay fen gëmoon naa sëñ Muntaxa gëmatuma ko fekk gëmoo ko woon sëñ Muntaxa ku ko ñam dootoo tàqamte ko leneen lu dul moom loolu mënul nekk donc gëmatuma ko bi ça veut dire que yow da nga doon fen <coughs> xam nga nit dafay mën a fen mais pour élever fen bi wala tooñ bi da ngay ñëw fekk la nga toog pourtant yow ci journaliste yu mag yi nga bokk gëmut la de lam lay wax lay lay lay yëkkati mais da nga juum da nga nàngam gëmatuma sëñ Muntaxa loolu seen waxin la ñoom. pour wandi ñi ne sëriñ ci ngeen gëm duñ dara ndax fexé nañ bañu gëm ne gëm Ousmane Sonko gëm benen sëriñ mënul nek ndax sëriñ yi ay naafeq leen ay complice leen dañ leen di jox ay millions ñuy lekk ga teud seen nek bayi leen leen japp Ousmane Sonko donc lolo waral ñu dem ba tuddé ko mu sell mi lolo waral ñu tak ay njëlam lolo waral tay ñu ne na joxe ndigal lolo waral mom mu dem ba yek succès bobu di manipuler bakkanu nit ñi donc koku nga tuddu xawma ma <coughs> Mola xawma lan <clears throat> moom dafa tekkiwul dara ci ron sëñ Muntaxa te gëm naa ko gëmatuma ko rek wane na ne gëmul ko sëñ Muntaxa ku ko mës a gëm da ngay gën a gëm rek waaye doo wàññeeku doo dellu ginnaaw te ku gëm sëñ Muntaxa te muy dëgg ci yow da doon royuwaay ci askan wa nga bokk ndax royuwaay la ci ñun déedéet lu mu mën ci alalam déedéet au fait comme man mi gën ndaw sax xaw ma ko kon kenn xamu ko ci réew mi. Eh, xam nga mooy li ma la wax Ousmane sonk dafa diagnostiqué senegaal xam ne nit ñi sëriñ si leen gëm ñii dañoo ñàkk ñii dañuy mere nguur ñii xamuñ dara ci suñ digganteeg tubaab bi mu jël yooyu yëpp def ko arme. xool yooni murid ba mu neex ko mu xam ne dañoo am pastif, xam nga murid boo koy xas loo koy wax amoo pastif loolu rek doy Ousmane Sonko jël partem tuddee pastif. yaa ngi dégg dañuy bayal suñuy sëriñ alarba, ngir ñun dañuy yóbbu ci kër sëriñ si ñu ñuy dundal di ñu faj di ñu def lépp suñ bàyyi du joxe suñu yaay duñ joxe àllarba bañ leen di bayal mooy doon seen moomeel Ousmane Sonko ne na ndaw ñu bay ñëpp bay ñu dajale xaalis si jox ko ñu dem ba tuddee ko mu sell dem bay takk njëllam dem ba koy laaj ndigal baatu ndigal ci politique du daan jub donc dafa copier yooni murit ak sëriñ si ni ñuy dundee mu teg ko ndax gëmut leen moom Ibadou la dafa gëm ne lii yëpp ay caaxaan la mu utiliser loolu pour dem ci nguur moo tax sëriñ si bu ñu yeewoo dëgg dëgg dëgg dañuy xam ne kii ñoom la bëgg a coup d'état ndax tax na léegi ñu ngi leen di saaga doomu El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh kañ nga mos dégg ñu koy saaga ci internet waa Sonko yee ko saaga. Murid bu daan taxaw di wax yoni murid lu bon ci jamono sonko len ko xamé ci politique murid dang daan bëgg ablay wad sax seigne abdoullah joxe ndigal nga baye ablay wad dem murid dañu dañu civilisé dañu yaru dañu organiser dañu am kilifa mais murid murid bu taxaw ak tidiane tiwawon bu taxaw saga sa kilifa ngir politique ci Ousmane Sonko la commencé ay nitam rek ko def nak Assane Diouf mi saga conférence de presse ci ginnaw Ousmane Sonko la tok yow mi nek presse amo doole ba mëno fa dem wax na ne léegi la ko Ousmane Sonko message kon ñu ngi am contact direct dimbalel sa xarit bu tooñee ak bu tooñee ak buñ ko tooñee nako ko wax ne Assane eh, li politique la aduna rek la murit nga demal nga djéggalu mais ba tay mu ngi tok ci ginnaawam bokk ci gang bi moolaa boobu nekk fële di saga information yimi jot ñok koy jox ñom sen politique gor la saga gor saga nday jambour tuumaal nit wàccee daraja serigne parce que sëriñ ci dañu xam yalla xam nit xam nañ ne ñi ay kat leen duñ nit ñu baax ñu bëgg askan wi ne ñi dañ leen jënd bu leen leen déglu gis nga ko gis muy ñëkka boole rek dafa toñ wala jubul wa ñom dañuy daw boole askan wi ak sëriñ ci yow askan bo xamne bo boo juddoo bala baa la tudd la ngenté mo la dalal dara même examen mo lay ñaanal mo la ñaanal jabar mo tegel sa mola mo la yobbu màkk mo la nangam nangam ñu jaxassal ak mom ngir politique te ki tax nga jaxasoog moom mënalu la dara sa digganteeg yàlla ndax moom sellul bay yegg ci ku sell ki mu ngi ay tuuma yu setul ci moom nga bàyyi sëriñ boobu ngir kii dara jaru ko ci àddina nekk lu loolu dama ci kontaan ah li tax ma kontaan ci mooy uh-huh. daf ma won ne président Macky mi ñu fal uh-huh. am na jikko yum jëlee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bok na ci jukko yoyu moy jéggal kula togn wa bok na ci jukko yoyu moy teral kula togn bok na ci jukko yoyu moy esprit de dépassement xam nga tay Macky Sall du président APR du président Benno Bokk Yakar président de tous les sénégalais kenn ci sénégalais <clears throat> taxaw saga sa ndey saga sa mu dem ba am conscience que li mu def mu wër la ba ci yow na la baal mbaax nga ne ko baal naa la emoo ci teral ko mais lii la yonantu jàngale nii la sëñ Touba def mu ñibbisee ci tukki mu réy mi dafa om maam Cheikh Anta Gaawaan ne ko yàlla mi ma jëloon fii Mbàkke Bawol yóbbu ma teg ma ci loxo noonu dogal na ñibbisi naa liggéeyal naa sëriñ yonantu bi lu ko kenn du liggéeyal def naa ci àddina loo xam ne doomu aadama yi mënuñ koo xam ba di ko tudd yàlla fay na ma nag fay goo xam ne man wàcc naa ndax yàlla xool na ma bëti ngër mànd goo xam ne mer mënatu cee tegu waaye man sëñ Tuubaa képp ku ma topp wàcceel naa la lépp waaw ku ciy jaamu yàlla da ngay sant yàlla rek mais du pour àjjana ak safara bi mu waxee loolu mu gëstu ne su ma noon yi baal naa leen yemuma ci baal leen waaye yàlla na leen yàlla boole ci suma mbooloo ñu bëri tey ay murit leen seen maam noonu sëñ Tuubaa la woon waaw histoire du yërëm duñ den ko tudd rek te señ Touba teral na len bañu len di def ay cheikh sen mam nonu señ Touba la won loloy mbax kon Macky Sall bu defé lolou tollalewu mo Macky Sall ak señ Touba non non non duñ exemple waaw señ Touba Macky Sall mo matut sax dal ci señ Touba pour mu leer. bokkuñ bokkuñ dimension mm. mais dama la bëgg won né yonentou bi jangalé jikko yoy ba señ Touba mel non bay ñess mel ko Macky Sall amna jikko yoy ci nim def ak Sall dama ci kontaan. mais di féliciter Kaliphone bi mu xamé na togn na mu wat ginnaw loolu lay xaar ci patriote yëpp ñu dem ba waxaat Sénégal ne baal leen ñu àq ñoo juum ñun ñu doon saaga seen ngir Sonko ndeke jaru man loolu lay xaar ci patriote. ñenn ci Sénégal ñu jàppee loolu c'est normal Macky Sall dafa war a dafa war a jënd noonu Macky Sall su mënoon a jënd Sonko sa jënd ko. Ah waaw mu ñëw ñu bokk defar réew mi comme sonk am na xelam inventé am na am na pexe mu wax loo xam ne du dëgg ni ñi gëm ko mais Macky soxla na dafa am benn waaye dafa ñëw ne cinq plus cinq ñaata la ay liggéeykatam waaji na ko ah loolu kay 10 la na daf ko ne cinq plus cinq du 10 waaji na ko déedéet du 10 de mu ne ko wax baax mu ñëw mu ne ko 5 plus cinq ñaata la. mu ne ko ah ça dépend rek ci ni nga ko jàppee kenn na ko 5 plus 5 ñaata la mu ne ko 10 la te 10 la mu dàq ki ko wax dëgg mu bàyyi fa ñeneen ñi biñ xëyee mu laaj leen mu ne ana diw mu ne ko dàq naa ko mu ne ko yow lu te dàquma la mooy naa fekk nga xam nga ne 5 plus 5 10 la man ma bañ nga bañ naa fekk nga dama la soxla fii ci bureau bi mu ne ko yow moom fenkat nga mais kële dafa dëggu du jëmale société kanam Macky Sall soxla na Ousmane Sonko pas pour développer Sénégal mais mu recadrer ñi nga xam ay dof leen duñu gëm dëgg muy mën di wax ak ñom jox leen communication bobu donc Macky Sall ni mu jëndee Kaliphone la wara jëndé jëndee non la war parce que ay doomi Sénégalais leen ku si ne am nga talent xam nga Balla Gaye mbeur la talent mbeur la am nek na roi des arènes mais Ousmane Sonko talent bi mu am ni mu ci te dem na ci ba na xam ko ku né ak sa talent rek mais ñëpp la soxla en tant que président de tous les Sénégalais li may tàggatoo mooy bu la suma mbir neexee jërëjëf boo ma bañee ñaanal ma wasalaam. <laughs> mbokk internet yi doon sax di seen ak seen dinaa leen indi doon daal di nga xamante ni moom moo di Cheikh Ahmed Cissé mu nekk koo xamante ko màcc ci wàllu na yaakaar naa ne neex naa rek saa lay defee ñu amul fi nga xamante ni moom moo aara sa suñu di leen jox di leen jox di leen bi di leen jox si seen programme bi